Somebody, somebody. amiin yaa rabbi may lu xam nga man fi bien tard nii. trois jours ngi nii on était ensemble. la dëgg la je sais il sait que yaa ngi lay suivre. jërëjëf lay ñaanal. jërëjëf gëm ne. li ngay def mën orientation donc aussi merci beaucoup merci beaucoup en tout cas courage beaucoup de courage nga wax ju jub wax ju baax lañ ko waaw waaw mu ngoog yow yaa leen dalal kontaan nañ trop mu ngoog vraiment merci yal na la yàlla courage jërëjëf courage jërëjëf kontaan nañu waaye waaw mu ngoog non non non li mën mooy ñaanal ko léegi dëgg la dëgg la ndeysaan sama sama sama nit la ndeysaan seras ndeysaan ndeysaan kii li nekk Dakar yi ma nekk démb maag moom Paris wallaay dëgg la ndeysaan ndeysaan keroog daf ma bett quoi keroog ndeysaan ndeysaan ma suñu lépp nag boo ko jàppee Sénégal moo ko jàpp suñu goro la sax. voilà ah, bébé bébé voilà loolu ah,